gis ngeen na fi nga xamante ni moom mooy euh, tali bu mag tali bu mag aussi tamit lii moo fi daal di am doo gis kenn ku manifesté wu voilà gis ngeen police yi ñoo ngi daal di euh, nekk fii oto bu génn ñoom ñu ngi koy daal di kar euh, di xool daal di defaat li nga xamante ni moom mooy kii gis ngeen ne fii moom mooy tali bu mag. et que ni euh, gis ngeen station station bi yoon bi moom moo jëm Géejawaay dañuy daal di dugg biir Géejawaay xoolaat fi nga xamante ni moom mooy marché bu bees la xool it lan moo daal di xew foofu noonu parce dem euh, jàmm gën xool euh, lan euh, moom moo lan moo xew foofu noonu Abacar Babacar yaakaar naa ni liggéey bi demee nii parce que ñoo ngi wóolu fi nga xamante ni moom mooy banlieue bi ñu dugg si koñ yi gis kenn ko traité kooku ne ku si nekk toog ku si nekk toog nga sa biir kër parce que lii moom solo nee naa leen bu nguur jëlee li ñu war a respecté la war doon na rakat buñ daanoo fii de buñ daanoo fii Salaaw voilà moom i moom jugee nañ Pikine ñoo ngi ñuy dugg Guédiawaye côté euh, police Guédiawaye gis ngeen ak ñooñu ki nga xamante ni moom moo ah, Guédiawaye xool ñu xoolaat euh, lan moo xew euh, biir Guédiawaye gis ngeen ngi biir uh, géej uh, waay ñoo ngi biir uh, géej waay ñoo ngi ñii si police bi ñoo ngi nii si police géej waay parce que comme ni may wax à chaque fois et que ni liggéey bi nga xamante ni waa police bi bàyyi nañ koy def liggéey bi nga xamante euh, waa police bi euh, bàyyi nañ koy def am na solo fii mooy police su géejawaay bi moom moo nekk nii gis nga ñoo ngi nii di ko romb oto police yi day dugg partout day dugg fépp di vérifier comme ni di vérifier yi nga li nga xamante ni euh, moom mooy sécurité bi te ko Babacar boo xoolee nga xam ni nga xam ni toog sa kër daal dara dàqu toog sa kër dara dàqu ko toog sa kër jàkkaarloo li nga xamante ni moom moo sa télé wala nga xam loo def seetaan bu naa ni daal dara dàqu ko et que mooy loolu ñëpp jëloon na dogal parce que démb booy xool benn tali joxoon na démb booy xool la benn tali yi. am na ñu fa nekkoon ci euh, yëngal comme ni nga ko waxee voilà ñoo ngi ci euh, géejawaay bu jub euh, station bi nee na doo gis kuy taxawaalu toog fa lu am na solo comme ni ko baax ko fi ñu am TV di site boo xamante ni seen bëgg la bokk di site boo xamante ni information réew mi lay daal di indi voilà comme ni ñu koy daal di waxee parce que fii moom mooy euh, li nga xamante ni di euh, station Touré euh, gis ngeen ne ñoo nii di dem école Limamou Laye voilà ñu jub école Limamou Laye ñu ngi jub école Limamou Laye Babacar dafa mel ni fii dafa mel ni fii euh, dañ doon euh, yëngal la li ñuy wax yëngal gis nga xeer yi fii Babacar gis nga xeer yi fii nii yaakaar naa ne waa Géeju ay aussi tamit dañ doon euh, yëngal la gis nga xeer yi Babacar et que xeer yaa ngi nii gis ngeen gis ngeen gis ngeen gis ngeen gis ngeen xeer yi gars yi wàcc nañ ko si tali bi dafa mel ni waa Géeju waa Massa Bés bañ naa ko ay daawoo gudd woon bu ko defee dañuy wat si ci kanam xool dañuy euh, avancer waat ko euh, ci kanam daal di ko euh, xool situation bi dañoo maasaale doodaan bi dañoo maasaale doodaan bi euh, voilà ba tey yow ñu doon dugg bi géejewaay xool euh, li nga xamante ni kon ñu ngi bonde gis nga ñu ngi bondé parce que moto bu fi nekk lay dugg Babacar voilà avancé loo tuuti avancé tuuti Babacar ñu xool avancé avancé tuuti yow di euh, voilà comment ça dit ñu ngi euh, géejawaay marché bu euh, bees banlieue bi dem nañ euh, géejawaay dem yëmbal dem yi dem Pikine dem Parcelles doucement tàmbalee nañ tourné jaar fu nga xamante ni mooy Pikine duggaat biir géejawaay ñëwaat marché bu bees ñoo ngi nii di duggaat yëmbal la gis ngeen di duggaat biir euh, yëmbal la am na solo lool la li nga xamante ni toog leen seen kër la wax te ku si nekk daal di ngay euh, toog sa biir kër couvre-feu couvrez-vous euh. couvre-feu couvrez-vous. gis ngeen euh, def nañ tour di wër banlieue vous avez vu euh, la situation et que ni lu war ku si nekk la ñuy euh, euh, def toog sa kër mooy lu gën waaye toog sa kër moom mooy euh, lu war yaakaar naa ni ah. ba tey Babacar ba tey ba tey am na ñu toog seen seen biir seen bundu kër yi ba tey am na ñuy euh, toog seen euh, buntu kër gis ngeen gis ngeen euh, Dame Diop gis ngeen ñoo ngi euh, tali euh, Dame Diop euh, kër Bara Gaye maire de Yeumbeul voilà Nathalie Dame Diop Mansour comme li ñu ko waxee woon na liggéey bu am solo bi nga xamante ni gars yi euh, nañ ko am na solo euh, lool la couvre-feu couvrez-vous ñëpp tëju nañ seen kër ñëpp daal di nañ euh, toog euh, seeni kër parce que Babacar gis nga ñëwaat nañ fii di yëmbal et que ni. comme ni ñu ko waxee woon liggéey bu am solo bi nga xamante ni policiers yi wala force de l'ordre yi ñoo ngi koy euh, amale parce que boo xoolee comme ni ñu ko waxee woon euh, la ñuy daal ñëwaat di ko daal defee à chaque fois ñu ngi wat euh, fii di yëmbal sud fii moom mooy police yëmbal sud voilà gis ngeen ñoo ngi euh, jub fi nga xamante ni moom mooy euh, croisement voilà ñoo ngi jub euh, fi nga xamante ni moom mooy croisement bi yëmbal moo nekk nii sécurité bu doy nit ñi ñoo ngi toog seen kër waaye polise yi ñoo ngi si tali bi seddaay bi di la rey mais lépp rek ngir taxaw kaaraange réew mi parce que tëgg sa kër neex na lool waaye ñoom it ñoo ngi taxaw euh, def li nga xamante ni moom mooy euh, kaaraange euh, réew mi gis ngeen ba tey couvre-feu la ñu wax couvrez-vous couvre-feu couvrez-vous gis ngeen euh, li nga xamante ni euh, liggéey bu am solo bi nga xamante ni waa police bi ñu ngi koy daal euh, def macha allah am na solo lool lool lool lool ñoo ngi taxaw ci angle bu ne pour yore sécurité bi pour. def li nga xamante ni moom mooy euh, taxawaay bu war a parce que Babacar boo xoolee nii nga xam ni euh, liggéey bu am solo macha allah liggéey bu extraordinaire toog sa kër am na solo waaye tamit yaakaar naa ni euh, liggéey bi police bi daal di jël la gendarmerie yi militaire yi. ñëpp wàcc sur le terrain comme que dañ ne état d'urgence ku si nekk war nga mën toog sa kër ba taw ñu jëm fi nga xamante ni mooy jàmm gën xool situation bi dafa daal di ba tey jàmm dañuy jëm jàmm gum Ababacar kii mooy daw parce que la ñu toogoon waaye du ñuy policier fii euh, euh, nga ñu dugg ci koñ bi xool naka la situation bi daal di demee fii au niveau de Diamaguène comme ni ñu ko waxee woon ndeysaan liggéey liggéey métti na toog di filmer mais lépp ngir service de information askan bi ñu mën a xam lu xew si dëkk bi. gis ngeen euh, mu ngi fi du caaro yi Biafra mu ngi euh, caaro yi euh, Biafra comme ni euh, dañuy daal di dugg si koñ yi xool la li nga xamante nii ni moom la waa koñ bi di dundee comme euh, couvre que ni buñ nee couvre-feu ku nekk na nga sa kër gis nga gis nga toog sa kër la mooy lu war mooy euh, dañuy defaat demi tour kubel kubel